te ñu fóot dañu ñu sang réew mi nag ñu sang ko waaw dañ ko sang de fanweeri at ngi ma di ko wax ñu di ko bañ dañ ko sang dañu sang réew mi réew boo ko sangee ak xol bu set dal di noppalu boo ko sangul ak xol bu set deret tuur waaw maa la ko wax boo ko sangee ak xol bu set mu set wecc waaye boo ko sangul ak xol bu set deret waaw mag mu baax laa ko wax fële ci ardul quds ma ni ko waaw lu tax yonent bi ñaan yi mu def yëpp ci ardul quds te li fi dee ci ay nit mësul dee fenn mu ni ma ci nun la mu ni ma ci nun la nag ma sàcc wax la ko waaye ci nun la mu ni ma ci nun la xol yi xol yi la lañu sotti ci réew mi mu takk ah li ma ci nun la xol yi xol yi la sotti ci réew mi mu takk ah te le Sëriñ Babacar waxoon ni jubóo bi nañ ci boole ñépp bu kenn des te nañ ko def ñëpp fekk ko ah nañ ko def ñëpp fekk ko te dégg na Hadj Mansour waxe rek yépp baax yépp ndax la mu ne kii moo ma yar maa ko xam buñ ko bàyyee ba mu génnee li ci xolam yépp rek bu ñaanee yépp dana ndox tabarkal la kilifa piir la yàlla ko defal maa ko xam ba tax nag ba tey réew mi ñu bàyyi xel ci loolu ndax itam jubóoru ko baaxul mukk ci lu ñépp moom ci lu ñëpp moom jubóo ruq baaxu ci mukk ba tax na rek ah wal baladu tayib yaxruju nabatuhu bi idni rabbi walladi xabus laa yaxruju illa nakida yàlla wax na ko te la mu ci jublu ñëpp xam nañu ko moo tax rek xol yi xol yi xol yi ah la Bilaal waxoon rek ba muy dem Sham ah te sëñ Babacar ko ko mooy la ca Madina xaju fa la ca Madina xaju fa ca xol yu tàng xëccoog wujjanteeg gaaralanteeg ña ña ña yu kenn xamul yu xamul looloo tax mu fa bu dem mu mel ni kon nag eh, mbay daal ci sa yow tànk te itam rekk ñu sang réew mi waaw ñu sang réew mi ndax dama ci bokk ba tey yàlla xam na ni bokk naa ci ba tey moo tax ñu sang réew mi rek mu gën de ndax itam ku seet ñeenti siècle yoo xam ne tabarkal la yaa ci réew mu révolution amul guerre civile amul yàlla di la jàppale au mat quatre siècles da nga bañ ni doo sang réew ma bul xam lu cay topp bul xam lu cay topp de te mag a wax ak man wax ak man de yàlla xam na ko te ma mësuma yëg ci moom mukk lu mu wax mu deñ waxtaan rek nu sang nu sang réew mi nu sang ko moo gën de nu sang ko xol yu sell moo gën ko ak xol yu moo gën te lu ne ñu jaare la ko yoon lu nekk ñu jaare la ko yoon lu nekk ñu jaare ko yoon farata piir la lu nekk ñu jaare la ko yoon